أداوى كل لهين سارف الهلمة لرب تعالى راجيا ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq bu baax a baax di leen masawwaat di jiital ci suñu ziyaara ak suñuy nuyoo eh, xalifa biñ fi fekk di xalifa bu tedd bi di cheikh Mouhamadul Muntaqa Bachir ibnu Seyxul Xadim radiyallahu taala anhu eh, ñu ngi jéggalu baax a baax nag ndax ni ngi ko alquran tënkee yaa ayuha allazina amanu laa tarfawu aswaatakum fawqa sawti nabi ñu ngi jéggalu baax a baax eh, ñi fi jot ñëw di xalifa bu mu doon saafonte léegi ak njaboot Cheikh Umar gépp laay moom cheikh bi Ahmadul Madani Tidjani Mubashir Cheikh Umar xalifa fële sa Soudan ànd ak mboolem njaboot ji kenn ci ay doomam di Mohamadul Hadi kenn ci njaboot ji Ahmadul Madani Tidjani Mubashir Cheikh mar kenn ci njaboot ji di Mouhamadul Mahi ak Mouhamadul Makki mu Mubashir Cheikh mar Ahmad Aqib Tidjane Mubashir Cheikh Umar Mubashir Mouhamadul Ghali Tidjane Mubashir Cheikh Umar ñii ñoo bàyyee ko Soudan ñëw di la ziyaara yow xalifa ju tedd ji waaye mu ngi ànd ak amir Nigéria amiral muminin di amir bu toog ca Nigéria di xalifa ca Nigéria ñoom ñoo ñëw gunge xalifa bi amir ahmad Sardawna Habib Ahmad Nour Cheikh Oumar mooy kële toog mu amir la fële ca Nigéria eh, mu ngi ànd ak tamit imaam Dallema di imam Baro ñoom ñoo ànd eh, ak tamit kenn si njabootu xalifa Segu amiral muminin taawu Cheikh Umar Segu la nekkoon kenn si xalifa bi fa nekk rakkam di Ceerno Hamidu Madani Muntaga Ahmad Lamidi Diouldé moom tam bokk na si délégation bi e, kenn si njaboot jiwaat si njaboot Thierno Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Oumar di sa turandoo sa soppe sa xarit Thierno Madani bi muy gëj fii ñoo ànd bi muy gëj fi maax moom ñoo ànd moom sa soppe Thierno Madani Muntaga Caaru Saydu Muntaga Imaam jaami Cheikh Umar mu ngi lay nuyu di la ziyaara di bég si yow di kontaan si yow comme nu jullit yépp bégee si yow kontaan si yow taawu Caaru Saydu Muntaga Imaam Ahmad mu ngi nii toog rakkam Mouhamadul Makki mu ngi nii toog rakkam Cheikh Umar mu ngi fële ca ginnaaw e, ñenn waat si njaboot ji si njabootu Cheikh Umar Muntaga suñu wayjur jooɗo ahmadou Muntaga Cheikh Oumar ahmad tafsir aqib Muntaga Saïd Zeynabou Fadima Naziru moom si wafdu bi la bokk Mouhamadou Seck kenn la si njaboot Cheikh mar moom tamit doom la sët la goro la ca kër ji mooy denc rakk soxna Mariama Ba di soxna Ummu Kulsum Ba eh, kenn si ñoom di Aliou Mamadou Moussa lii di almadar doon Samba Paate kii ngendiyanke la diggante ñaari njaboot yi xam na ko bu baax a baax ku ko maîtriser la Alhaji Malick Sow mooy imaam kër Thierno Seydou imaam Thierno Muntaga fële ca Ouest Foire Umar usmaan Ndiaye Umar sal Bodian di sëfër Thierno Madani moom tamit ca la bokk Moussa di ca la bokk e soxna Mariam Ba nag mu ne mu ngi lay ñaanal yàlla def nga dund ñaari téeméeraat ndax yow yaa ngi bokk suñu borom wax waltakun minkum ummatun yaduuna ilal xayri wa yaamuruna bil maaruufi wa yaa nahawna anil munkari soxna May Ramba loolu la wax yaa ngi dajale gislaam gi yëpp fii ak adduna gi yépp li nga sumb yàlla na nga ko naanalo naanalo ak njaboot yi yàlla na la fi yàlla yàggal bàyyi la fi mu ànd ak wér sayidatu Faatimatu rahmatullahi bu Ceerno Seydou Muntaga taawu Ceerno mun Ceerno Seydou Muntaga imaam bu jigéen suñu doom mu ngi ànd ak ñun e, yaay faatu kenn la tamit ci njaboot yi yaay Binta Njaay kenn la ci njaboot yi Sahabatu Jóob kenn la ci njaboot yi Nenne Ñang kenn la ci njaboot yi ki doon wax nag di seeni jaam di seen mu massil sa turandoo Muntaga Ahmad Bachir Muntaga Cheikh Oumar waaye li gën a yéem Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu bi mu xoolee rima Cheikh Oumar bidaaya ba nihaaya mu ne waman yurid nayla asrarin aw maarifatin fala yufaarik rima Cheikhana Oumar ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq bu baax a baax soxna ma yaram nag nee na am na li nga xamante ne moom tamit aywa li mu indi woon ngir sa teraanga ngir sa mbaax ngir tamit aywa sa lépp asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw Ahmadou Bamba ak ci tuuru Cheikh Omarou Fouti Tall Cheikh Omarou Fouti Tall mu ngi ni ci sunu kanam doogandoo Bamba Eh, góor gi borom teraanga ji dafa jógee Soudan xalaat ren man maa ngi dem eh, jokku mbokk ci réew mi ñuy wax Sénégal nga xam ne foofu la ñu cosaanu jóge woon fii ànd ak Cheikh Omar ba finalement ñoom ñi ñëpp ñu demaale bu jëm Makkatal Mukarram am ñu ci des nag ci yoon wi am ñu egg suñu zurriya la yoo xam ne am na ñu bari yéguñ ne sax ndeke ñoom ñu ngi fa ren nag mu ne day jógee foofu ñëw fii nemmeeku njaboot gi yépp fas voilà fasaale ci yéene nag sëñ sunu sëriñ bu tedd mu fasaale ci yéene bu ma ñëwee su ma nammee ko sama njabootu El Hadj Umarul Fuuti Taal dinaa dem kër Cheikh Ahmadou Bamba ndax am na lu ñu jàng am na lu ñu jàng ci histoire lii teg jokkaloo Cheikh Umar Fuuti ak Cheikh Ahmadou Bamba ci baatu ñoom xam nañ ko kon nag bu ñëwee ba ci réew mi dina laaj fan la nan la def ba egg ci këru Cheikh Ahmadou Bamba ziyaara leen ndax Cheikh Umarul Fuuti yi dafa muusa nekk ci biir réew mi génn réew mi dem ba réewu Guinée yàlla di ko woon leer leer googu mu topp leer gi bu mu paree foofu ci sëriñam ci Fuuta Toor Fuuta Jalon mu ne man daal bëgg naa dem aji Makka waaye dinaa dem taggu samay waajur ci Fuuta waaye waaye leer gi may gis bi yoon bu ma demee dinaa jéem xool leer gi fan la ne mooy bi mu ñëwee Poroxaan ba giseeg maam Jaara bi mu giseeg maam Jaara ci teen bi maam Jaara daf ko xool mu ànd ak ay nit maam Jaara wuutal ko ndox indi ndox mi ci teen bi ne ko ceerno amuñ fi ndox mu bari de waaye lii maa la koo terale ma la cay bëgg tamit nga ñaanal ma ci ndax sama kilifa gi dafa feebar Cheikh Umarul Fuuti bi mu jàng bi mu naanee ndox mi jox njobootam ba pare delloo ko li desoon ci ndox mi ne ko nag nañu dem ma gis sa waajur ju euh, sa sa kilifa googu bi mu demee mu ñaan ba pare ne kii nag dinaa ko ñaanal wér gu yaram bi muy demee jàkk yàlla may ko si ndax ndigg di lef daan metti lool waaye nag dem na ba munatul dem jàkk waaye dinaa ko ñaanal ba mu mun a jóg di dem jàkk ji di julli waaye wér munu ko am teeg leer gaa ci ndiggam gi su fëggee su fa jógee rek dina wér ndax leer gi mu am doole mooy Cheikh Ahmadou Bamba mu jógee ci moom ñëw ci maam jaara juddu ci sunu àddina gi ñëw nekk leer ñëw nekkal sunu sunu sunu mbégte kon nag bu ñëwee ba ci réew mi fii dina ñëw war la war laa gis soxna si nga xam ne nag mooy Mariam bi nga xam ne mooy sunu maam jaara Mariam Ba mu ne kooku yoon boobu man gi naa ci sawar ndax maa yore loolu ndax kooku sama kilifa la sama waajur la mu toppatoo loolu moom ci boppam nag ñëw na tey loolu moo ko indi munul woon jóge fii dem Séné eh, delluwaat Soudan te ñëwu fii waaye moom bi muy jógee Soudan bi ko kalee ñëwee eh, eh, Cheikh Cheikh Dawna bi mu ko déggee ne ñëw na Sénégal moom tamit mu gaawantu jóge foofu ñëw nguur gisaa gis ko mooy mooy Cheikh Cheikh Dawna mooy xalifa Cheikh Nigeria mooy moo toog moo toog ci Nigeria ci famille Cheikh omar foofu moom tamit moo fay moom moo fay xalifa voilà mu jógee foofu ñëw ànd ak moom moom tamit mu ñëw di leen ziyaara la gis njoboot ji ndax xam nañ ne ñëpp mbokk lañu fuuta lañu ay fuutanke ñoo fi toje tey ñu fi ñëw nag délégation comme ni mu la ko waxee am na ñu ci dëkk fu bari waaye fuuta daal moo ci gën a bari doole ñëwoon ziyaara la mu wane woon may jottali ko bii kàddu bu gàtt ngeen baal ñu ndax kii ɓurɗi teddude ɓurɗi uurde ɓurɗi mawnude holludema kadi weltare nde o heɓi immade ɓiɗɗo walla taniraɗo cheikh umarul fouti leydi ummidi to woɗɗi yaɓɓe koyɗe muɗum ari ha yetti o wawa yettinde ɗin konnguli kono embo eto holludemo weltare makko mawni no feewi e gargol maɗo amnandide mo reyi walla walla metti o wi weltare goy kadi mette seeɗa ko heɓi sentuwomo wonaa ni o sikkirnoo wonaa ni o soynirnoo gargol maa ɗo o wi mbo yaafnoma mbo ayi toro ma yo accan mbo hakke e ɗum o wi so anndirno ko ni ka garowo ngarda ɓeɗo e yimɓe tedduɓe o wi nden tawoytamo ko gueso makko o wi wonde to woni taalibaɓe makko ɓe fof e keewal

diggante bi metti na ma lool o kadi mbo arta e kadi haa jooni mbo yaafnoma kanko embo famɗini no jaɓɓori ma ni no famɗi e, e, e ɓernde makko no famɗi e ɓernde makko sinno ko sabu makko taw o anndirino ni o jaɓɓoma jaɓɓungal manngal haa leydi ndi fof dilla tina ko gargol maɗo e yeeso makko <laughs> Mm-hmm. o wi kono kay mbo senna e joomiraaɗo subahanahu wa taala nde o jogii jooɗodaade e ma e tedduɓe e mo ngadduɗaa ɓee fof o wi goonga goonga ni tan allah hoddiri ɗum o wi so anndirno hono ni o wi arta e ko wiinoo ko tan haa jooni o wi wallahi so andirno hono ni ko almuɓe ɓe fof garata wuro ngo fof dilla ha leydi ndi fof tina e, e, e, e teddugal ma e jimme mbo allah rokkuma o e tedduɓe ɓe garduɗa ɓe oyi mo arta ko wino ko ha joni ya yaafumo e haqqe jaɓɓugal ngal o jaɓɓingal aɗa fam ono famɓirimo aɗa haani ko ɓuri ɗum ɗo teddinede e jaɓɓede na xam ne yéen naa jëmm ji teew fii tey ak mboolem o wiya anndu kay yo rek eh, yéene yi nga xam ne am am ko ci tërale o wi e mbo seedna joomiraaɗo tan anniyam o jogii e, e teddindema nde xam ne sama sama yëkkatiku na jëm ci ñoom o wi e makko e ɓernde makko fof ummima e makko faye e meɗen onon arɓe ɓe gam jaɓɓade moon rendude e moon wondude nde gotum e nder belɗe men alhamdulillah o yimɓe tuuba fof gandi wonde ɓe dañi koɗo mawɗo tedduɗo wallahi machallah machallah o wi o wawa yaltinde ko woni ko e ɓernde makko kono ma o haal tan seeɗa kam kono ko woni ko weltare e nder ɓernde makko wawa yaltude ɗemgal makko wallahi oye gaccanamo hen hakke sinno ko saabu makko wonani yaranno magi oo wiyamo seenna jomiraɗo subahanahu wa taala e julɓe tawa yen gandu tan enen fof ko wonno teddungal ko wonno enɗam ko woni hakkude cheikh ahmadou bamba e cheikh oumar ombo tini ɗum e nder ɓernde makko kanko mo tini ɗum omo weltori ɗum o wi mawo ɓur jabbudema no feewi mawo ɓur aynude aynudema aynude gueɗe ma no feewi no feewi inchallah mhm. ko ɗo tan wawi haadde ko woni ko e nder ɓernde makko wawa ɗum haalde woni ko hessidinde mbo haalam hesdidi ko seddana o wi ɓernde makko ɓuuɓi kal dalna o wi ɓernde makko ɓuuɓi haqqille makko ne jeeƴi yaka o wi yakar makko ɓeydima tamowo makko ɓeydima no feewi sant yalla ni sant sunu borom ɓuuɓa o wimo emo yetta joomiraɗo subhanahu wa taala emo e e yetta kadi cheikh oumaro foutino feewi mo yetta cheikh amadou bamba emo e yetta en en on onon arɓe ɓe mo garuɗa o teddugal كافية كافية مجموعة مجموعة من أحوال مالك شيخ أحمد بامبر على العقيدة والتصوف الفقه تصور فقه التوحيد مجموعة المعلومة الدينية نعم الدين فقط كفى وهذا كتاب حقيقة الشيخ محمد وهذا قصائد alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam uh, fadilat alcheikh muhammadin almuntaqa bachir ibnu xaadim rasul radiallahu taala anhu ñu ngi lay nuyu di la ziyaar ci turu soxna Mariam Ba sa doom sa soppe nee na lott na ci rotal kàddoom man tamit lott naa ci lool wuutu ko ci kàddoom waaye nag kàddu gi yépp kàddu cant la rekk ak kàddu ñaan ñeel la ne yàggul bi mu fi jóge ne cofeel bi nga am ci moom cofeel boobu tamit la am ci yow mu ngi lay nuyu bu baax di la wàccee sa wàccuwaay ànd ak way juram yi ak doomam ak mboolem njaboot Cheikh El Hadj Omar radiallahu anhu nee na kàddoom yépp nag mooy sant yàlla santale la yàlla di la ñaanal ci kéem ñaanam fu mu mën a yam nee na moom lott na si mën la ñaanal sax waaye day féetale sunu boroom ci boobu ñaan ci li mu bëgg ci xolam ak li mu la nammal yàlla defal la ko waaye ne bokk na li ci gën a rëy mooy mu ngi ñaan yàlla yàlla may la gudd fan lool ne bu néewee ba néew yàlla na la yàlla may téeméer ak fukk ak juróom ñett muy dund Ceerno Saydu Nuur nii la ko waxee wala du ko ëpp ne bu néewee ba néew ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla defal te mu ànd ak wér nga yàgg jiite mbooloo mi nga yàgg jiite njaboot gi nga yàgg jiite lislaam te nee nga yaa ngi matale kaddu yàlla gi boole ñépp nekk benn ndaxte yow ràññewoo sa njaboot ràññewoo njabootu keneen ñépp jullit yépp ñoo yam képp si yow kon nag loolu daf la koy sante di da gërëmaat bu baax a baax ci teraanga tamit yi nga ko defal ak yi nga defal njabootu Cheikh mar yépp di la yëgal tamit loxo yi ñu tegoon fee ñu daloon ñoom wuutu nañ la ba mat sëkk lépp loo nammoon ak loo bëggoon ñu teralee leen ko teralee leen ko kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax te amuñ sa pay ne alquran rek moo la ñor kàddu yàlla rek moo la ñor salaatu ala nabi moo la ñor moo tax mu ne daf la indaaleel symbole rek bii nii mooy salaatul faatihi bi ñuy jokkoo mu ne mu teg li hadiye bii ci sa loxo terelee la ko amul sa pay amul lu mu la mën a terelee waaye nag day jël lii symbole bi rek bu gën a rafet li salaatul faatihi ak ngëneel yi ci nekk yépp daal di di ko terelee góoram tamit di Thierno Mountakha Ngaïda daa di ko tegal lii hadiya ci sa loxo kon nag lii moo nekkoon kaddu bi xëy na nag ñaan ñu may wax ne waxtu bi soreetul waaye nee na mu ngi lay gën a jàpp bu baax a baax di la gën dénkaat boppam comme ni mu ko jàppee woon démb ak barki démb di féddalewaat kollëre bi soxna mariyam di taxaw taxaw lislaam ak li nga ko ñaanal pour mu taxawee taxawaay saydatna Khadija ndaxte moom way juróom yu baax yi way juróom bu jigéen kiñ ko tuddee di Mariam ki jur papam ne Cherif ah, ci dawaaliya ci Mauritanie ci Attar yoroon daara alquran di jàngal alquran ba bi muy yàlla di moom bakkanam dafa doon jàngal alquran jàpp ba mu set kon nag si ñooñu la bàyyeekoo loolu yëpp tamit ne ñu ngi la koy bëggalee bu baax xëy na lott naa ci jotali kàdd yi mu rotaloon yëpp ñu gàttal ko fii rek di la nuyuwaat di la féddale ko lewaat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rahim alhamdulillah hamdan bila bidaya wala nihaya والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة وسلاما لا نهاية لكمالهما يدومان ما دام الحق أما بعد حبيبي وأخي في الله الولي الكامل الشيخ بجميع مراتبه الشيخ منتقى أحمد بمبة آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت وأبنائك وتلاميذك أعمكم وأخصكم وأعم جميع أهل طوبة التي هي إن شاء الله هي طوبى وحسن مآب أما ما قلته الكلمات التي قلتها أنا أعلم جيدا إنها نابعة من قلبك هذا الحب وهذا الإكرام وهذا التقدير أنت تقول كنا نستقبلك بآلاف الناس وآلاف الناس أنت تمثل ملايين الناس استقبالك هذا واحترامك وهذه الكلمات التي قلتها هذا هي قيمتها ربما تكون أكثر من أهل الأرض عندي أنا لو كنت جمعت لي كل أهل الأرض عندي أنا تحديدا هذه الكلمات عندي أقيم من ذلك لأني أنا متأكد هذا من قلبك وأنا قبل قليل أخبرتك qultu laka fi udnika inni ittaxadtuka xabiban wa axan fi llah fi dunia wal axira wa hada aad اتخذتك اخا وحبيبا في الله تبارك وتعالى وساواصل المواصله معك اذا لا تيسر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وهذه الكتب بتاعت العارف الله الكامل ولي الله هذه الكتب انا اسمع بناء معهد إسلامي كبير ستدرس فيه إن شاء الله بعد إذنكم بعد إذنكم ستدرس فيه إن شاء الله وأحمد الله الذي هيأ لي هذه الفرصة لزيارة هذه البقعة الطاهرة التي كنت أتمنى أن أزورها وكما أخبرتك قبل قليل إن بنتي مريم جزاها الله خير قلت لك أخبرتني وكان تخبرني بما زادني شوقا إليكم وإلى طوبى إلى أن قدر الله بسببها وأتيت إليكم وأخبرتك إنها قالت لي أبي وأنا في السودان قالت لما حصل لي أنا ضربت اتصل بي وأنا كنت أقول لك كفار الحمد لله سلامة أخبرتني قالت أنت لما سمعت بحادثة التي أصابها أرسلت أبنائك ليطمنوك عن صحتها قالت لما أتوا أبنائك هي نسيت آلامها نسيت مرضها بل شفيت إذ صارت شفيقة عليك شفقة عليك أنا أبي هذا اتخذني بنته وهذا رجل كبير إذا سمع بمصيبة هذه يتألم ربما يصل لصحته قالت مثل يعني شفقت عليك أنت نسيت آلامها هي فجزاها الله خير ولعله هي السبب في هذه الزيارة لما لا يشكر الله لا يشكر الله والحمد لله كانت تزيدني شوقا دائما أبدا قبل أن آتي كما أخبرتك قبل قليل الحمد لله الذي يعني أتى لي هذه الفرصة الحمد لله رب العالمين الذي قلته نعم هذه الكلمات لا أنسى ولا الذين معي الذين معي هذا الذي قلته كما قلت كثر هذا لو جمعت أهل الدنيا كلها قيمة هذا الكلام عندي أقيم هذا هذا الكلمات دلل دللني على ما في على على ذلك الحمد لله صحيح صحيح الحمد لله الحمد لله اكرمكم الله اكرمكم واطال الله بقاءكم امين امين ونفعت بالسبيل امين امين امين rabbil alamin xam naa léegi timis jot na timis jot na waxtu wi ni ma raw amin amin amin amin آمين آمين آمين إياك نعبد آمين آمين آمين آمين أرتجن قيام ذا الحرون من به راب مروداسا بن حنين قادوا تائعا له وهو فخري وعروتي وجليسي بأحادي ذي المزايا المكين أحمد الحامدين مدى خوزي ولربي بدعوات الكركوني يا إلهي عليه صل وسلم مع للوى لليقين من صحاب تبت أهله لوكيل قد هداهم بنور حق اليقين رب هب لي استقامة وانطلاقا بالمراضي والتموا عني نفيني يا إلهي يا من عليه اتكالي فك كبلي بروض أهل سفيني